Hello. Salaam yaa. naa ko mi. jàppuloo jàmm nga yendu. naa may Sidi. gars yi den wax na den lay opéré. den na ma lekk bul naan de xaw ma nag leeraloon ma ko de. bul naan tam dafa yóbbu théâtre rek ñu seet ko xam nga ñu leeral loola bés yi ñu ko war a bés xam lan la. sama ndeyjoor bi daal moom laa booy métti métti boo xam ne taal. ndeysaan yooyu yëpp tuyaaboo la jàppaloo. waaw loolu la ma yàlla dégg nga jooy ba sonn. Hmm, bul di jooy yow soo jooyee ñi jooy day bëri ja. <laughs> da caalit. Hmm? da nga caalit. damaa xam ne moo Ahmed li ma jànkuwaatee ci hôpital bi yëpp. Hmm. man vraiment na waaye dina jeex àdduna dara neexut lépp ay méttit la. am na ñuy jaabante am na ñuy jaabante kaso mosoo fa dem am na ñuy jaabante tribunal am na ñuy jaabante ci baar ba di naan sàngara fi nga toog nga toog li nga nekk nga war a nekk wéradi day yóbbu bàkkaar wéradi day yéegal daraja Baye bi doomam bi di jàmbat bopp bu métti moom daf ne ndax bopp dina sedd xam nga kooku musta taxalikook moom loolu yëpp tiyaabo la rek ku la gën a wéra moo la gën a jege yàlla jox naa